Assalamualaikum, sëñ bi yow kan. wax ñu tey jii nii ki nga àndal nii kan la. kii mooy Jakot le bulldozer bulldozer élevage bi Jakot moom demi jël eh, benn domu Maysa Maysa Wade Maysa Wade di domu Boy Lebu ak Ramses benn domu bu góor lañ teg ko si doomu Ferdinand mu jur Jakot Ferdinand di doomu Gelwaar. Jakot kañ la juddu ñaata la fu mu toll jamono bi. bon moom trois ans manqué na deux deux mois quoi. bi mooy bi mooy première fois am ci con ci histoire. concours woon na gagné woon foofu deuxième deuxième place après ko jënd di day présenté waat ren. non ren moom xam rek dañoo defal gars yi benn foire bu rafet rek ñëw tegal leen. exposé leen quoi mais macha allah de ah. parce que ñi fi ñëw ñëpp dañu bëggoon mu jóg quoi. mu jóg dëgg la dëgg la dëgg la mais xar nga xamante ne tamit vraiment gars yi ñu bëri dañuy ñëw di ko di ko seetli mais xam nga suba ji xar yi si la ñuy gën a mën a noppalu plus que ngoon gi moom mooy ëpp ay visite comme ça ngoon gi nag da ngay daal mu jóg doo ko daal nag guddi gars yi ñu bëgg a foto foto ñu bëgg a foto ñu am na lu mu fi bàyyeegul moom. njabootam waaw def na fi bëri jigéen yëpp ñu fi dinaa leen dinaa leen présenté yëpp incha waaw mais ku leen bëggoon jot ku bëgg a dab gars yi ku bëggoon a xam fan ngeen dëkk fan leen nekk. waaw bergerie Kayor mi ngi fii Thiès. quartier euh, Asalem. après gendarmerie gendarmerie bi noonu. numéro de téléphone. numéro de téléphone numéro de téléphone noonu 77. dix dix beneen numéro bi 77 569 79 11 78 voilà. femelle yi ak ak euh, jackpot lu ñu bokk wala moom. waaw xam nga amoon na benn maal bu ñu yoroon di si liggéey muy préfet. waaw comme gañe na foire Thiès donc moom moom lañu booleeg ay doomam nii ak euh, jackpot def benn sélection comme ça. macha allah. macha allah dañ ko ay doomu préfet. préfet moom gars yi miin nañ ko voilà nga jël ay doom boole kaat jàpp exposé ko quoi aussi tamit am na ay surtout préfet yu nekk fii nii gis nga jàpp kese nekk fii comme maal tamit six six box la quoi d'accord macha allah jërëjëf ah, waaw